أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما daa'imayni mutalaazimayni ala mamari zamani wa duhur asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki TMS TV mbokk yi ni seetaan ak di déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq di leen ko baal di ñaan yàlla na yàlla boole defal ñu njéggal ci barke yonentu bi sallallahu alayhi wa di jiital ci nuyo bi ak ziyaara bi kilifa diine yi tabaarakallahu nuyu alxaaji Thierno Moule saw di ko ziar bu baax di ko ñaanal yàlla jàmm ak sutura yàlla sàmm ko ba delloosi ko ci barke yonent bi nuyu njaboot gi yëpp di leen ziara fa tabarakallahu di ndokkeel waa réew mi yëpp nag ci lii nga xam ni moo am ci réew mi ci jàmm jàll ci jàmm tabarakallahu muy élection yi ak investiture bii tabarakallahu nga xam ni ah, réew mi nag yàlla dogal na ni fal nu njiitu réew bu bees tabaarakallaahu ba officiellement doon na président de la république du Sénégal ba logé na palais ba démb tabaarakallaahu ci euh, talaata ji macha allah yàlla na yàlla defal ko jàmm moom président de la république euh, alxaaji Mouhamadul Bachiru Jomaay Jaxaar Fay tabaarakallaahu yàlla defal ko sutura yàlla sàmm ko ba réew mii di Sénégal ñu teg ko ci loxoom yàlla na ko yàlla dëgëral sàmm ko ba li askan wi di xaar ci moom yëpp moom mottali ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu mu mel ni rek tabaarakallaahu euh, président de la république yàlla dafa dogal bi nga xamee ni ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam yonti yàlla muhammad génn na àdduna tabaarakallaahu nga xam ni dañu doon xool ku ko war a wuutu moom yonent bi moo tax sax ñu yéex koo denc yéex koo denc ndax sallallahu alayhi wa génn na àdduna altine talaata ba àllarba ci guddi ñu soog koo denc ñaar nag moo taxoon ñu yéex a denc yonent bi min doxchatin axaru daf na nabi wal istixaalihim man yu walla kalla mi bi ci jiitu mooy dañoo gëlëm ñoom ñépp jaaxle ndax ku ñàkk ku mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënoo jóg rek denc ko noonu ndax wax dëgg yàlla gëlëm nga jaaxle nga ndax ñi nga xam ni ñoom lañu ñu yaakaarloon ngir ñu gindi leen delloosi leen ñoo gën a dem ñépp waaw keroog ñoo gën a jaaxle ñépp mënuñoo delloosi kenn muy Seydina Omar di Seydina Ousmane di Seydina Aliyun ndax aboubacar saddiq radiallahu taala anhu yàlla dafa dogal faatug yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa waaye wakaanu uxrisa usmaanun wa uqbila faaruqun wa uqida laysul buhmi wa zamami seydna usmaan ba ñu ko waxee ni ko yonentu bi sallallahu alayhi wa dafa génn àdduna usmaan dafa luu ci saa si mënatul a wax gaa yi ni usmaan day kon amul pexe nañu dem wax ko seydna aliyun biñ ko waxee Seydina Aliyun moom dafa lafañ ci saase mënatu la taxaw ñu ni ku mënta taxaw de mënta lijjanti dara nañu dem wax ko Seydina Omar bi ñu ko waxee Seydina Omar moom dafa ràcc dafa rocci jaaseem ne man yataxadda anna muhammadan xad maata xataltuhu bi sayfi haza képp ku ma déggati nga dogu ni muhammad faatu na damay jël sama jaas yi ji tàqale sa bopp ak sa baat ñu ne nag koo xam ne dafa lu mënatu la wax ak ku lafañ mënatu la dox ak koo xam ni tabaarakallaahu tàggoona ak sagoom ñett ñi mënuñoo regle dara booba nag Babacar Saddiq fekk ko fa woon waaye Babacar tabaarakallaahu ba mu ko yëgee moo ñëw nag moom Aboubacar Saddiq régler problème bi ni leen man kaana yaabudu muhammadan fa inna muhammad qad maata wa man kaana yaabudu llaha fa inna allaha xayun laa yamut Babacar ni leen maa ngi leen di wax ni képp koo xam ne muhammad nga doon jaamu na nga xam ne Muhammad moom bis ni ki tey dee na waaye képp ko doon jaamu yàlla na nga xam ni yàlla moom day dund te du dee ndax li tax mu ne Muhammad dee na mooy kullu nafsin zaiqatul maut waaye nag tabaarakallaahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ci ñi nga xam ne dañuy dee rek seen ruux daal di absenté carrément ci àdduna waaw ba tey moom yonent bi sallallahu alayhi wa ruuxam mi ngi présent waaw ba tey am na ñoo xam ne ñu ngi koy gis di ñaan ci barkeem yàlla di nangu seeni ñaan tabaarakallahu muy seede mboolem jëfi jullit ñi moom sallallahu alayhi wa waaye mbokk yi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee saxaaba yi dañoo dogu ci xool kan moo war a remplacer yonantu bi bala ñu koo suul looloo tax ñu yeex koo denc waaw kon bu njëkk bi ci yeex a denc bi mooy dañoo gëlëm ñoom ñépp jaaxle tiit xamuñu fu nu jëm ñaareel bi mooy dañu doon xool kan moo ko war a mën a remplacer ci lanu ñoom ñépp d'accord nag ni Aboubacarin Siddiq war naa mën a remplacer sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa ci la nag tabaarakallahu Ababacar euh, Seydina Omar wax ni man Omar day Babacar Saddiq doy na ma lan moo tax Babacar Saddiq doy ma mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu feebaree ba mënta jiite Babacar Sadikh la jiital sa Sadikh moo jiite jullit yi keroog mbaar ma ñu defoon ca Badar sa Sadikh moo toogoon dend ak moom keroog ba muy gàddaay jóge Màkka jëm Madina sa Sadikh moo àndoon ak moom waaye keroog ba mu rañaanee dem ci yàlla ñëw ñépp weddi ko Ababacar Sadikh moo ko dëggal kon tabaarakallaahu man omar ababacar doy na ma yëkkati loxo ababacar daan ni képp ko ababacar doy ñëwal fii nga jaayante ak aboubacarin siddiq tabaarakallaahu ci la jullit ñi nag kenn ku nekk sa xel dellusi ñu jaayante ak ababacar siddiq mu doon njiitu réew mi doon njiitu jullit ñëpp di amirul muminin waaye mbokk yi li ma bëgg a wax mooy déggal ababacar siddiq ban ko investiré ba pare ban ko investir jox ko yat wa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daan yor buy xutba waaw taxawal ko ci kanamu min baru sayidna muhammad alayhi salaatu wa salaam comme ni ñu investir démb président basiru Diomaye Diakhar fay waaw takkal ko lu vert loolu takkal ko collier bi tabaarakallahu mu taxaw yëkkati loxoom waat waaye xoolal Ababacar Sadiq biñ ko investir moom Ababacar lan la wax nga xam ni njiitu réew yépp war na noo jàng ci loolu Ababacar lu mu wax dani ayuha nnaas xad wuliitu aleykum wa lastu bi xayrikum fa in axsantu fa atiuni fa wa in asatu fa xuumuuni asidqu amaanatun walkazibu xiyaanatun wa daifu fiikum xawiyun indi xataa uriixa alayhi xaqahu inchaa allah walqawiyu fiikum daifun xataa aaxaza alxaq minhu inchaa allah laa yadacu qawmun aljihaadu fi sabilillahi israbahumullahu bizulli wa tashacu alfaxishata fi qawmin qattu illaa amahumullahu albalaa atiuni ma ataatu llaha wa rasulahu fa ida ositu llah wa rasulahu fala taata lii aleykum mbokk yi dégg leen Ababacar Saddiq lan la wax fi basiiru Basiru yi Jaxaar Fay président taxaw barki démb di fa Ababacar taxawee lu mu wax dañu ee yéen nit ñi jiital nañu ma ci seen kanam waaye na ngeen xam ni gënuma leen allahu akbar kon loo cay déggee yàlla moom nguur moo koy jox ku ko neex yàlla jiital ku ko neex kon loo ëppale nit ki ci pouvoir ak lu mu mën a doon bul jàpp ni da gën moo tax nga moo tax nga jiitu ko bul jàpp ni da gën moo tax nga ëppale ko déedéet wu wuuti wuuliitu aleykum wala walastu bi xayrukum waaw jiital nañu ma ci seen kanam man Ababacar Sadikh may seen njiit tey di seen président de la république di njiitu jullit yépp waaye nag na ngeen xam ni man sa Sadikh gënuma leen de du dama leen a gën juddu moo tax de déedéet waaw du dama leen a ëpp alal moo tax de déedéet yàllaa ko dogal ci man muy responsabilité bu yàlla teg ci sama loxo mu ni leen nag fa in santu fa a fa ainuni bu fekkee ne rafetal naa li nga xam ni moom ngeen ma dénk ah na ngeen ma apprécier wan ma ni li ñu la dénk yaa ngi koy teg ci yoon bu ko defee ma gën a ko xam nu may def ba teg ko ci yoon waaw mu ni nag wa in asatu fa xuumuu nii bu fekkee ni dama ñaawal nag li ngeen ma jox yëg ngeen ni maa ngi jalgati sarti réew mi nga xam ne moom ngeen ma dénk ah na ngeen taxaw nag ne ma Ababacar Sadiq ma ni leen la bayka ngeen ne ma nag lii taxul woon ñu dénk la yaa ngi jalgati charte yi bu ko defee ma mën a joot jooyanti sama taxawaay allahu akbar gis nga de su ma rafetalee na ngeen ma encouragé waaye su ma ñaawalee na ngeen taxaw nag ne ma arrête yaa ngi jalgati charte yi Ababacar Sadikh ni leen as-sidqu amaanatun dëgg rek mooy kóolute waaw dëgg rek mooy sécurité waaye wal kazibu xiyaanatun nee na ay fen daal du dara lu dul wor waaw nee na su ma doxalee dëgg xam leen ni yéen a ngi ci sécurité waaye su may doxal ay lu dul dëgg maanaam di def lu ma neex xamal ni ñi ngi ci ak woroo dëkk bi du dem fenn mu ni leen nag ki nga xam ni moo am doole ci yéen na ngeen xam ni ku néew doole la ci man ba ma jël lu dul dama jël dëgg ja nga xam ni moom la jàppe woon ni mooy dooleem te moomu ko dama koy nangu ci moom jox ko ki ko moom waaw mu ni ki nga xam ni moo néew doole ci yéen nag Ababacar ne leen xam ni ku am doole la ci man ba keroog may xeex ba jël dëggam joxaat ko ko waaw ndax réew mi looloo fi am bari na ñoo xam ni seen doolee tax ñu nangu suufi jàmbur yi bare noo ñoo xam ni seen doolee tax ñu def lii seen doolee tax ñu def lee waaw lépp teguñu ko ci yoon ci doole rek lañu ko teg sa dex ni képp koo xam ne nag jot nga loo xam ne sa doolee taxoon nga jot ko na nga xam ni bu teguwul ci yoon danaa ko nangu jël doole ja delloo ko ka nga xam ni mooy boroom képp koo xam ni perte nga loo xam ni sa moomeel la sa àq la sa yelleef la waaye sa néew doolee taxoon nga perte ko Ababacar ni danaa xeex ba nangu ko nangu sa àq sa yelleef delloo la ko waaw tabaarakallahu mbokk yi dégg ngeen sa Sadiq waaw prestation de serment boobu muy def ndeysaan Aboubacar ni leen amul yenn nit yuy taxaw di xeex ci yoonu yàlla lu dul yàlla da leen a teral waaw waaye amul ñenn ñuy taxaw nag di def loo xam ne dañuy def la leen neex lu dul yàlla da leen a toroxal waaw abubakar saddiq radiallahu anhu ni leen atiuni ma ataatu llaha wa rasulahu na ngeen ma topp fii ak maa ngi topp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasalam waaye nag mu ni leen fa ida asaytu llaha wa rasulahu fala taata lii aleykum su fekkee na nag dama moy yàlla ak yonent bi war leen ah amuleen benn droit nag ci topp ma ñëw leen fii ngeen coup d'état ma ngeen jële ma ci bopp réew mi jële ma ci bopp jullit ñi xam ni man Ababacar Sadikh maa ngi jalgati yoon mbokk yi kon xutba Ababacar Sadikh radiallahu taala anhu boobu lan nga ciy jànge danga ciy jànge ni ndekete njiit bu nu la jiitalee taxul nga gën ñi nga jiite bu ñu la jiitalee dañ laa jiital pour nga joyanti pour nga defaraat bu ñu la jiitalee dañ laa jiital pour ñi ñi néew doole nga fexe ñu am doole bu ñu la jiitalee dañ laa jiital pour ñi nga xam ne ay jaaykati doole lan nga damm seeni laaf ba seen jaay doole googu tabaarakallaahu dootuñu ko mën a doxal bu ñu la jiitalee dañu laa jiital ngir nga taxaw justus bu leer naññ waaw di àtte ci yoon di àtte ci dëgg ko am dëgg nga jox ko dëgg ku amul dëgg nga xañ ko dëggam waaw bu ñu la jiitalee dañu laa jiital pour nga bañ a def kumba am ndey ak kumba amul ndey ñëpp yam même pied d'égalité xam ni ñëpp ay sénégalais lañu ay di d'identité sénégalaise lanu yor bu ñu la jiitalee dañu laa jiital ngir yi nga xam ni réew mee ko moom na ko doomi réew mi jariñoo waaw bu ñu la jiitalee tabaarakallaahu dañu laa jiital macha allahu ngir nga taxaw réew mi waaye nga taxawi doomi réew mi ba kenn ku nekk yëg ni kat rëcc wunu lu ñu doon tànnee président de la république mbokk yi loolu moo doonoon xutba aboubacarin siddiq ba nga xamee ni jiital nañu ko ca bopp jullit ña tabaarakallaahu kon nag ñu ngi ñaanal président de la république yàlla ko yàlla defal jàmm moom itam yàlla defal ko sutura di gërëm di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo doon suivre TMS TV tabaarakallaahu ci waxtaanu koor tey ñu jëme woon ko ci prestation de serment tabaarakallaahu muy waat ak tab bi nga xam ne tabb nañ ko njiitum réew di gërëm sëriñ fàllu faal bu baax xaaji jibi ñu gërëm ko bu baax fa tabaarakallaahu ñaanal alxaaji Thierno Moule Sow jàmm ak sutura ci barke yonent bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.